عمرك ما الدنيا بدار بقائي كفاك بدار الموت دار فنائي فلا تعشق الدنيا أخي فإنما ترى عاشق الدنيا بجهد بلاء حلاوتها ممزوجة بمرارة وراحتها ممزوجة بعناء فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة فإنك من طين خلقت وما لقل امرؤ تلقى لله شاكرا وقل امرؤ يرضى له بقضاء ولله نعماء علينا عظيمة ولله إحسان وفضل عطاء وما الدهر يوما واحدا في اختلافه وما كل أيام الفتى بسوائه وما هو إلا يوم بؤس وشدة ويوم سرور مرة ورخاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى ربنا مبعوث رحمة للعالمين wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain amma baad asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëwaat ci émission bu am solo bi tamay duwaa subh ñu koy amal ci rajo bi nga xam ne ne moom mooy Risaala podcast di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal jàmm ñëpp ñoo xam ne ne eh, wax bii mu ngi yegg ci ñoom naka noonu te mu defal ñu jàmm kon boo xëyee bokk na ci ñaan yi nga xam ne ne moom nañ gisoon ci jotaay yi nga xam ne moom mooy yu weesu yi gisoon nañ lu aju ci xas bala nga xam ne moom mooy xasbi allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkalu wa huwa rabbul arshil azim naka noonu tamit lu mel ni raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan ila donc gisoon nañ yu aju ci yooyu naka noonu tamit musluwaay yi auzu bi kalimatillahi ak bismillahi allazi la yadru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi sama wa huwa samiul alim ak yu demee noonu gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu tey incha allah ñu gis yan zikkar mooy yi nga xam ne ne nit ki moom la war di zikkar bi nga xam bi nga xam ne ne xëy na ci suba si ba julli fajar ba nekk di di jëm ci li nga xam ne mooy bërëbu liggéeyukaayam kon ñaan yi nga mën a def ci diggante boobu ñaan yu bari la maanaam ci diggante ba nga toogee fi nga toog ba keroog jant bi di jug ba ba keroog ngay dem dellu ci say activité am na ñaan yu bari yoo xam ne mën nga ci mën nga ko ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag dafa wax ne képp koo xam ne ne julli nga ba pare nga sax fi nga xam ne moom nga doon jullee fajar suba si ci biir jàkka ji boo fa toogee ngay continuer di zikkar di zikkar ba nga xam ne ne naaj bi génn na bu boobaa dañ lay bindal comme si koo xam ne ne dafa dafa umra kon loolu tamit lu jar a bàyyi xel la ci ku ko mën mun na koy def naka noonu tamit képp koo xam ne nag mënoo ko mun ngay continuer dem sa yoon waaye bul ko bàyyi noonu rek mu neen del def ay ñaan del def ay asgar waaw del def yeneen ak yeneen yoo xam ne mun nga ko def le temps nga yegg fi ngay liggéeyee wala fi nga xam ne foofu nga jëm wallahu taala ahlam عجبا للدهر لا بل لريبه يخرم ريب الدهر كل إخاء ومزق ريب الدهر كل جماعة وكدر ريب الدهر كل صفاء ñaan yi nga xam ne tamit mun nga ko boole ci yi nga xam ne ne moom mooy sa ñaan yi wala zikkar yi mooy boo to jullee ba pare ba toog nga wax subhaanallah wa bihamdihi subhaanallah wa bihamdihi adada xalqihi subhaanallah wa bihamdihi adada xalqihi subhaanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزناة عرش وزناة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزناة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزناة عرشه wa midaada kalima kalimaatihi kalimaatihi kon loolu tamit bokk na ci li nga xam ne ne nit ki mun na koy ñaan ni ma ko waxee nii ñetti yoon nga koy wax ci suba si mais nag balaa ngay jug fi nga xam ne moom nga doon julee nga koy wax yéen saa sa dafa wax ne ñaan bi boo ko ñaanee ñaan nga lépp lu nit war a ñaan ci kaw suuf loolu ñaan nga ko boo waxee ñaan bii dajale la lépp loo xam ne kenn ku ci nekk li nga war a ñaan nga ñaan ko yow ñaan bi boo ko ñaanee day regrouper lépp ñeneen doon ñaan te loolu muy tekki mooy sellate ak bàkk ak eh, cant ñeel na suñu borom tabaraka wa taala bi nga xam ne takkul dara luñ koy luñ koy luñ koy dindil adada xalxihi lu tolloog li nga xam ne ne moom mooy maanaam cant yooyu ak sellal boobu tolloog limub mbindeefam yi warida nafsihi ak moom ni mu ko bëggee wa zinaata arshihi ak tolluwaayu li nga xam ne moom mooy ngàngu naayam wa midaada kalimaatihi ak nu tolloog li nga xam ne moom mooy kàddoom kàddoom yi loolu moom mooy ñaan subhaanallahi wa bihamdihi adada xalxihi wa rida nafsihi wa zinaata arshihi wa bidaada kalimaatihi loolu bokk na ci li nga xam ne mooy zikkar yi nga war a nga war a zikkar am na yeneen zikkar yoo xam ne mën nga ko boole ci say zikkar lu ci mel ne subhanallah wa bihamdihi nga wax ko cent fois subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi kon loolu ñaan la bu am solo ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne eh, eh, eh, subhanallah wa bihamdihi tamla aanil mizaan maanaam tamlawu maa bayna samaawaati wal ard dafa alhamdulillah wa tamlawul mizaan n'est-ce pas subhanallah tamlaw walhamdulillah tamlaw ma bayna samawati wal ard aw kama qala sallallahu alayhi wa dafa wax ne li nga xam ne mooy subhanallah euh, walhamdulillah ñaar yooyu dañoo nekk yoo xam ne moo tax ñu boole ko subhanallah wa bihamdihi ne ñaar yooyu dañoo nekk loo xam ne ne dañuy feesal balance alhamdulillah day feesal balance bi subhanallah bi xam ne yii day feesal lu nekk ci diggante asamaan ak suuf waaye tamit dafa wax ne euh, kalimataani xafifataani ala lisaani xabibataani ila rahman mu ne ñaari kàddu yi ñoo ngi nii yoo xam ne ne euh, dañoo oyof ci làmmiñ waaye dafa nekk loo xam ne ne suñu boroom tabaraka wa taala du ko sopp du ko bëgg kon da ko bëgg moom mooy nit ki di ko wax kon boo bëggee wax benn zikkar boo xam ne ni suñu borom tabaaraka wa taala moom la gën a bëgg ci zikkar yi wala mu da ko bëgg dal wax subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi wa bihamdihi bu fekkee da nga ko bëgg utal lim cent ci cent ci journée bi baax na bu la neexee nga nga ko naka noonu tamit euh, am na yeneen ñaar yoo xam ne ne day ci ci même ci ci comme si xabiñu gisoon sànq la xam ne mooy subhaanallah wa bihamdihi adada xalqihi wa rida nafsihi wa zinat arshihi wa midada kalimatihi yooyu bokk na ci ñaan yi nga xam ne mun nga ko def mais subhaan mais ku mënul bu gudd boobu mun ngay continuer di def subhaanallahi wa bihamdihi idama xalilun xalla fi barzaxil bila fa xasbi bihi naiyan wa bu'da liqaa أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء وكانوا قبل أهل بهائي وكل رماه واصل بصريمة وكل رماه ملطف بجفاء naka noonu tamit mën nga boole ci ñaan yi nga xam ne moom ngay ñaan mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk walahul xamd wa huwa ala kulli cheyin xadir mooy laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul xamd wa huwa ala kulli cheyin xadir laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul xamd wa huwa ala kulli cheyin xadir loolu mooy lan mooy amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla wax wahdahu moom kese la sharika lahu amul kenn koo xam ne moom lañ war a bokkaale ak ak moom lahul mulk ndax moom mooy yor nguur gi walawul xam te moom moo yeyoo cant gi wa huwa ala kulli shay'in xadir moom dafa nekk koo xam ne ne lépp la mën a def amul dépp dara loo xam ne ne na suñu borom tabaraka wa taala ñaan bi nag ñaan bu am solo wala zikkar bi nag zikkar bu am solo boo xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne képp koo xam ne ne def nga ko cent fois ci journée bi boo ko fexee ba def ko cent fois ci journée bi amul yowmal xiyaam ku mën a indi jëf bu gën jëf bii nga xam ne ne moom nga zikkar ci bis bi dudul koo xam ne ne daal def na même zikkar bi ka yow ba pare mais mu dolli ci maanaam au mu def cent mu def sax cent un même bu fekkee dafa def cent un rek kooku xëy na moo la gën le mais à part loolu amul kenn koo xam ne moo la gën li mu zikkar ci bis boobu noonu naka noonu tamit mu ne képp koo xam ne ne zikkar nga ko dinañ la bindal yoolu koo xam ne ne dafa libéré ci waa banu Israil lu tollu diis ci ay ci ay jàmm koo xam ne ne nag dafa gudd trop ci yow euh, tayal jàpp na la mën nga ko def lu tolloog dix fois ndax lislaam loolu la yoo xam ne ne dañ ciy sawar la ciy indil ay solution yi nga xam ne tamit dangay ngay xaw a tayal pour def ko am na neneen noo ko mën a defee ci loo xam ne di ci profito moo tax bii tamit boo ko waxee diis fois di nga am benn dinga am yoolu ku libéré kenn ci waa banu Israël kon loolu te goreel jàmm loolu dafa nekk tiyaaba boo xam ne ne saxaaba yi radiyallahu taala anhum dañ ko doon xëccoo di ko di ko di ko ci profito فما ألفيت للموت حيلة ويعيا بداء الموت كل دوائي ونفس الفتى مسرورة بنمائي وللنقص ترمي كل ذات نمائي وكم من مفتى مات لم أرى أهله حبوه ولا جهدوا له بفدائي دوا له بفدائي أمامك يا ندمان دار سعادة يدومن ما فيها ودار شقاء naka noonu tamit ñaan yi nga xam ne ne mën nga ko ñaan mooy lu ci mel ne allahuma inni as'aluka ilman naafihan wa rizqan tayyiban wa amalan mutahabbalan allahuma inni as'aluka fi eh, ilman naafihan wa rizqan tayyiban wa amalan mutahabbalan allahumma inni as'aluka ilman naafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutahabbalan mooy yow suñu boroom tabaraka wa taala maa ngi lay ñaan nga defal ma ilman naafi'an xam-xam bu am njëriñ ndax nit ki mun na jàkk wala mun na am ay xam-xam yoo xam ne ne daanaka amalu ko benn njëriñ parce que nit ki fekkee am na façon diplome bu ne xam lu ne te diineem xamu ci dara kooku xam-xam boobu nga xam ne moom la am xëy na amal na ko fii nii ci àdduna mais njëriñ bi tax ñuy wax njëriñ mooy njëriñu àllaaxira te xam-xam boobu fii lay des du dem ci àllaaxira naka noonu tamit wa rizqan tayyiban waaye yàlla nga ma may tamit wërsëg bu teey yàlla na may yàlla na may yàlla may wala yàlla nga ma may wërsëg boo xam ne ne wërsëg bu teey la ndax wërsëg soit day nekk loo xam ne lu teey la soit mu nekk loo xam ne ne lu lu xaraam la xam ne ne suñu borom tabaraka wa taala da koo xaraamam comme nu mu ñëwee ci xadiis yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa ji nga xam ne moo doon ñaan waaye li mu doon dundee dafa xaraam mu daal di laaj ne kooku naka nañ ko mën a nangulee ndax li muy jëfandikoo lu mu xaraame kon risque mooy wërsëg tamit baax na lool waaye nag bi baax bi moom mooy bi nga xam ne moom mooy bu bu dagan bi kon nañ ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu wërsëg waaye nag wërsëg bu dagan wa amalan mutahabbalan ak jëf boo xam ne dañ koy nangu ndax képp koo xam ne yaa ngi jëf te nanguluñ la ko bu boobaa daanaka li ngay jëf amul benn sens mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne walaa tuxbal wala tuxbalul wuruur mais du ñu nangu li nga xam ne mooy wóorul bu mooy te mooy usurpation mooy sàcc loo xam ne ne wala triande euh, bépp alal boo xam ne rek dafa nekk loo xam ne daganul boo ci saraxee duñ la ko duñ la ko nangul moo tax nga war a ñaan ay jëf yoo xam ne ne tamit dañ ko war a nangu parce que yaa ngi julli waaye est-ce que ñoom la koy nangul yaa ngi woor mais est-ce que ñoo la koy nangul yaa ngi saraxee mais est-ce que ñoo ngi la koy nangul parce que am na xëy na benn mbir boo xam ne ne mu ngi ci biir boo xam ne yow yëgoo ko te loolu moo lay yàqal fi mu ne say jëf par exemple koo xam ne mu ngi julli am na sobe boo xam ne ne moom gisu ko te sobe boobu day tax ba du am julli loolu mun na ñàkk mun na mun na tax duñ ko ko nangul naka noonu tamit walla mun na tax sax xëy na wala sax mun na bañ am dara lu ko gàkkal mais nangu comme nangu ca yàlla la ne la nekk yàlla bañ ko koo nangul la xam ne ne ci charia lépp mat na lépp set na lépp baax na lépp wér na waaye nag nangu bi nag yeggul ci am charia du yegg ne yàlla dina ko nangul waaye ci li muy yem mooy ne julli gi wér na wala nangam bi wér na n'est-ce léegi nag lu aju ci nangu bi nag dafay aju ci suñu borom avant julli bi mun naam yaa ngi doon def yoo xam ne ne xëy na suñu borom tabaaraka wa taala bëggu ko loolu tax ba nga xam ne du la ko nangul wala beneen raison boo tax. boo xam ne ne moo tax du la ko nangul et cetera et cetera moo tax nangu ci yàlla la ne moo tax nga war a ñaan ñetti yi te ñetti yi incha allah bu ñu delloo ñaan bi da ngay gis ne ne lii rek doy na sëkk ci ñaan ci àdduna ak àllaaxira ndax loolu ñaan bi dafa dajale àdduna ak àllaaxira nan la ko dajale moom mooy fii yaa ngi ñaan suy borom tabaaraka taala xam-xam boo xam dalay amal njëriñ nga régler sa àdduna wa rizqan tayyiban nga am loo xam da nga koy def sa biir lay mën a dimbali ci li nga xam ne moom lay mën a tax a des ci àdduna bi te mooy xam-xam bi ak wërsëg bi loolu boo ko xasee ba am daanaka lépp baax na waaw amala moo tax xabbala waaye ak jëf yoo xam ne yàlla da koy nangu muy jëf muy jëf boo xam ne ne laaxira suma fa demee dama koy fekk foofu mu nekk lu ñu lu ñu nangu kon loolu boo xasee ba am daanaka yeneen yu ci des yëpp ak ndollent la waaye li nga waroon am am nga ko moom mooy am nga xam-xam bu la amal njëriñ am nga wërsëg bu teey am nga tamit ay jëf yu ñu nangu kon ñaan bi nii la ma baamu war ko allahuma inni asaluka ilman naafihan wa rizqan tayyiban wa amalan mutahabbalan خلقت لإحدى الغايتين فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجاء وفي الناس bokk na ci ñaan yi nga xam ne ne moom nga war a ñaan wala yi nga xam ne moom nga war a zikkar istixfaar ngay bëril astaxfirullah la am na ci xay yu bëri astaxfirullah wa atubu ilayhi wala astaxfirullah wala astaxfirullahi allazi astaxfirullahi allazi laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim yooyu bokk na ci nga xam ne ne istix istixfaar yooyu mun nga koy mun nga koy faral di ñaan ndaka noonu tamit eh, am na yeneen yoo xam ne ne comme niñ ko jàngale woon ci commencement bi sayyidul istixfaar yooyu tamit di ko di ko zikkar ak di ko jàng ci suwe si lu baax la ndax istixfaar dafa nekk loo xam ne ne day bijji wërsëg day tax tamit suñu boroom tabaaraka wa taala suturaal la donc ku bëgg sutura ku ne da ngay bëri li istixfaar ndaxte fiira mu ngi jóg bokk na ci mooyu mu jóg mooy almaxfira te muy casque yooyu ñuy teg ci ci bopp la xam ne day suturaal bopp nga xam ne day protéger nit ki ci naaj bi da koy protéger tamit ci li nga xam ne moom mooy choc yi ak yeneen ak yeneen kon yooyu tamit di bëri istixfaar day tax ngay mucc ci yenn yu bëri suñu borom tabaaraka taala di la aar ci yenn yu bëri ndaka noonu tamit bokk na ci ñaan yi nga xam ne ne mun nga koy mun koy faral di ñaan saa yoo xëyee mooy wowu fawwidu amri illallah inna mooy wowu fawwidu amri illallah ufawwidu wala nga wax rek ufawwidu amri illallah maa ngi jël sama mboolem sama mbir yi maa ngi koy jël jébbal ko suñu borom tabaaraka wa taala bàyyi ko ak moom mu koy doxalee comme ni mu ko neexee nga xam ne loolu boo nekkee ci xat-xat boo nekkee ci problème boo nekkee ci lu mënta njàkkare jëlal say mbir delloo ko suñu borom tabaaraka wa taala mu géral la ko la xam ne ne di ci mucc di nga ci am jàmm boo xam ne ne euh, macha allah suñu borom tabaaraka wa dina la ci dina la ci dimbali fawwidu amri illallah n'est-ce pas donc ñaan la yoo xam ne ne mënuñ koo jeexal ci ay jotaay dañ ne woon rek dañuy indi as tuut loo xam ne ne nit ki dina ci mën a mooy dina ci mën a am au moins loo xam ne ne dina koy faral di mën a ñaan ci saa yu xëyee mokkal ko incha allah kon émission baa ngi noonu xam naa tey ci doawu subh fii nañ koy yemale ba yeneen émission incha allah ñu aborder yeneen thème ndax objectif bi ñu ci bëggoon atteindre nañ ko j'espère que ne tamit ñi nga xam ne ñooy déglu kàddu yi leer na ci ñoom naka noonu tamit njàngale bi méthodologie bi lépp baax na arrangé na leen lépp loo xam ne ay erreur la ay njuumte la yoo xam ne ne ñun dañ koy seetlu yéen tamit ngeen koy seetlu ñoo ngi koy jéggalu di ko tuubal suñu borom tabaraka wa taala luñ ci jublu woon rek moom mooy rafetal wala defar waaye jubluwuñu ci woon yàq in uridu ila al islaaha mastataxt wa ma tawfiqi illa billah subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin كفاك بدار الموت دار فناء فلا تعشق الدنيا أخي فإنما ترى عاشق الدنيا بجهد بلاء حلاوتها ممزوجة بمرارة ورائحتها ممزوجة بعنائي فلا تمش يوما في ثياب مخيلا فإنك من طين خلقت ومن